wasallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi bila tana mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo leen di nuyu nuyób lislaam ñu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi fii tey ci kër sëriñ Xalil Mbàkke comme ni ko baaxee baaxoo def ak mu jot bu bisub salaatu ala nabi jubsee ñu ñëw ci moom dagaan ci moom mu waxtaanoon ñu jàjj ñu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñu koy nuyu bu baax di ko jot nuyoo sëñ Bassirou Touré di ko wax ne ko mbooloom yëpp ñu ngi am mbëgte ak kontante di ànd ak moom jotaay saa su nekk ci jotaay yi nga xamante ni mi ngi ñu koy may at mu jot di ko ñaan saa borom dolli ko kàttan dolli ko ak wér lii mën a moom liggéeyal maam bi sëñ Tuubaa su moom defal ko ko ci barke sëñ Tuubaa mbokk yi ñi ngi ñëw fii kër Sëriñ Xalil Mbàkke di wàcc bisub salaatu ala nabi bi nga xamante ni ñu ngi koy amal le 14 décembre 2024 fële ci Touba Sam Foqaratul Mubarak kër Sëriñ Bassirou Touré ak jotaay bi li ko waral mooy ñëw dagaan ci Sëriñ Xalil ngir waajal bis bi mu jàjju ñu wax wax ñu ci jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñoo koy xencu di ko di ko di di di gëstu mbiram di dund ci moom saa su nekk suñu boroom gën ñu may kàttan ba bu ñu dégloo waxtaanam di gën a soññeeku ci moom di ko gën a bëgg di gën a jëfe ndigal li nga xamante ni suñu boroom moo ñu ko digal ci moom kon dañuy jox kàddu gi Serigne Khalil Mbacke di ko jox nuyoo waa keppangu ko salaatu ala nabi yëpp di ko jox nuyoo bu sell di di ko di di ko jëlee ci loxo ba si ture di ko teg ci loxo bu sell bi kon ñu koy jox kàddu gi. mu waxtaanal ñu ci jukka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale bi ñu ngi leen di nuyu kon di leen ziyaara jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa alxalifatul am li taayifa al muridi ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko di leen yóbbante nuyoo ci sëriñ Bachir Touré moom itam di ko nuyu di feddale ni ñu seq ci ak mbokk ak kóllëre di leen nuyu yéen waa kuréel bi ñëpp di rafet lu baax itam liggéey bi ngeen di taxaw ci dëkk bi lépp dugg ci liggéeyal sëriñ bi ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax ñu ngi ko waxee nag yonent bi sallallahu alayhi wa gisee ñuy julli ci moom di ko ñaanal jamono bu nekk loolu delloo ko njukkal la ndax koo xam ne bu dul woon ak moom yàlla mën naa bañ a bind kenn te ak leeram akuk mbaaxam it mooy li jagal àdduna mooy li ñu dund ba ba léegi kooku moo tax jamono bu ne nga naan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ngir delloo ko njukkal ci loolu moo tax sax dana am na jotaay bu ñu waxee lu mel noonu bi yàlla ne julli leen ci moom julli gën a mi yàlla kenn mënu ko moo tax ñu delloowaat ko ko ne ko julli ci yow yaa ko man moo tax lu bari usalli wu mu doo dégg ñu ko allahuma salli nga wax yow yàlla jullil ci moom te moom dane woon julli leen ci moom waaye ñu delloowaat ko julli kon moom yonent bi alayhi wasalaam moom yàlla moo ko melal noonu moo ko waajal ba mel na mu war a mel mu tagg ko wa innaka la ala xuluqin melokaan woowu itam di loo xam ne yërmande yàlla rek tax mel noonu moom yàllaa ko melal noonu xuliqta mubarraan min min kulli aybin ka annaka xat xuliqta kama tashaw mu amul saw xi defe naa ko waxoon loolu yow de yàllaa la bind bindiin woo xam ne benn sikk nekkul ci yow mu mel ni bi la yàllay bind danga da nga wax ni nga bëggee rek mu mu binde noona loolu kon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa tax moom eh, yërmande yàlla tax mu mel noonu suñ borom nee na ko ci alxuraan fa bima rahmatin min allahi linta lahum ni nga nooyee mel nii ci nit ñi yërmande yàlla rek a tax wala kunta faddan xalisal qalbi lan faddoo min xawlik soo ne woon jog ne jàgg kon nit ñi nga gis ñu sawet kenn du ci sawet ñëpp dañuy dem bàyyi la fi moo tax kon ku yàlla yónni moo raw wax ak nit ñi faaw noonu rek lay mën a mel bu ñu bu nit ñëpp génnoon bàyyi ko kon woote gi muy woote nu muy wax ak moo tax kon loolu ab laytaay la ci mu war a jottali li ko yàlla yónni woon yàlla nag yaral ko boppam ni mu ko waxee addabani rabbi wa ahsana ta'dibi yàlla ma yar waaye yar ma yarin wu rafet moo tax mu mel noonu moo tax moom kenn mënul xam ab dayoom Euh, lu ci waay mën a xalaat wax ko ci itam la ci kaw rek ngay mën a xam waaye la ca biiram ak dayoom yàlla rek moo ko mën a xam moo tax sëñ bi ne waana kullu zi ilmin wa saayin wa rubbatin anil Mustafa fi xulqihi alxaaisi lonli ñëpp kenn ku ne lott nga ci xam yonent bi mooy kan moo tax xam xamle moom sëñ bi ne moom wa huwa al jëli wa huwa al xafiyu mooy ki nga xam ne loo ci xam bëgg xam rek ci kaw gi waaye wa huwa al xafiyu mooy fi jafee xam nag mooy ki waaye mooy ki nëbb <laughs> wa huwa jëli wa huwa al xafiyu waaye moom sëriñ bi yàlla yenkewal ko moo xam ci lu bari loo xam ne ci ay melokaan yoo xam ne bàkk na ko ci wax ko ci liggéeyal ko ca itam liggéey boo xam ne moom sëñ bi wax na ne kenn defaat lu ni mel ci lim lim lim jox yonent solo sallallahu ci liggéey yooyu moo tax kon ku ci doon bëgg xam dara dellowaat ca moom lam bind day gën a gaaw bind na ci lu bari ci ay melokaanam mu waaxi bu naafiam jikko yonent bi rek la ci wax jazbul xulub bi la ci wax muqaddamatul amda li ko yonent la ci wax raaya li ko yonent bi ci wax bari na waaye ñu jël rek muqaddamaat xool ni mu ko indee ak ni mu ko nose ak wax yi ni mu koy tegalee nga xam ne baat bu mu ci wax rek benn baat bi képp mën nga ko jël indi ci lu bare bare bare loo xam ne doo am mm-hmm. waaye mu mel ni kon su ñu xoolee loolu mu ko wax ne wan naasu wal miisaan wan naasu wal miisaan moom mooy mooy nit ñëpp moom yonent bi suñu jëleen ñëpp dajale ko rek day mel ni buñ leen tegee ci balance teg ko ci balance balance am day war sax waaw loolu nag Ahmad Sawxi waxoon na ko ca waxam ya laysa alallaahi bi mustankirin an yajmaa al aalama fi waahida yàlla tëwu ko mu jël àdduna bépp nit ñëpp lañ leen di bàkkee di leen ko tagge mu def ko ci kenn nit loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wal miisaanu mooy peesekaay bi nga xam ne lu ñuy natt jëg maandu euh, foofu ci moom lañuy ñuy dal moo tax benn bis benn xeex bu am ba noppi ñuy séddale màng ki xam nga bu ñu bu xeexee bu xeex bu xeex bi jàllee dañuy séddale kenn ku ne ñuy séddale ay daggiti or ay jur kenn ku ne ñu jox la am waa ju xaw a jama jama ju newoon ci wet gi ne ko ni ngay séddalee maandu wut <laughs> waaye keroog daf ko ne waaw bu ma maandu wut kan mooy maandu <laughs> waaw su ma maandu wut kuy maandu <laughs> waaw loolu loolu loolu kon wal naasu wal misaan mooy nit ñi mooy ki mat lépp loo xam ne <coughs> li ñuy séddale ñu naan kii moo jiitale kii jiitale yi moom lépp da koy incarne nekkoon général de guerre bi ma nekkoon imam bi ma nekkoon xutbakat bi mooy signé accord yi <coughs> mooy dem ci ngénte yi lépp moo ko boole mooy àdduna ak alaaxir lépp teg ko ci loxo ni ñuy jëlee léegi ci doxaliinu àdduna yi nga xam da ngay dégg ñaan pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif ñett yëpp da ko incarné woon yëpp yëpp moo nekkoon président de la république di signé accord yi di jëflanteeg état yi nekk itam attekat bi wax yi di wàcc yes aloo naka yi kuy lu jaaxle boo ñëwee mooy moo mooy fatwa kon pouvoir judiciaire ngoogu mu ne kon moo yoroon pouvoir législatif représenté nit ñëpp an nabiyu awla bil mu'minin min anfusihim mu ne lu fi waaye ñëpp mën naa mën naa leen a jabar ku fi ku fi faatu bàyyi fi njaboot man ma maa maa ko jël en charge kon moo représenté woon peuple bi ci lépp xam ne yooyu yëpp ñuy séddale moom da ko jëloon incarné lépp te teewul yàqalu ko ni muy doxale ci biirum njabootam yor lépp kooku moo tax eh, sëñ bi wax ko ci ay bayt yu gàtt nasihun bila richin alimun muallamun saxiyun bila mannin kalaaman yu layoon xool loolu ni mu gàtt waaye boo ko doon firi fi nam <laughs> jéem na la fa fekk gis nga ak nasiha nasihun nasihun yonent bi sallallahu alayhi ñuy wax diine mooy laabire nga xam jël na diine jëpp ko ci baat boobu nasihun nag bilaa richun gis kuy laabire te fekk laabire ka njariñam la ci nëb wala leneen moo tax muy laabire waaye moom bi laa riche wax njariñul ba mu taxul waaye loola jariñ lay wax loolu di lu am solo alimun muallamun muy ku xam koo xam ne muallamun la moom ñëpp moo leen ëpp xam-xam waaye fi ne boo bindan turam nii du ko xam Ah, gis nga keroog bi ñu signé accord yi ci euh, fële suloo xoday ba te bind euh, lii mooy li yonent bi sala li yonent bi yàlla bi juboo ak nangam nangam ñooñu biñ ñëwee dañ ko ne faral lii yonent bi euh, buñ gëmën ne bi yonent yi yëpp du ci am mu ne yi far ko àll yi du ko far xam nga daan <laughs> ndax loolu li ñu waaye da ko ne anam woon ma ko nga xam ne bi bu tiimee kii bi xamul xamul xamul xamul mbind mi mënta yër annabiyul ummi yi la ummi yi mooy ku mënta ku ferul ij ba noppi ëpp xam-xam ñëpp xam nga loolu loo ci jàng mooy nekkul ci ay mbind ak i làng ak yu mel noonu xam-xam ci dënn lay nekk la yàlla jël yulli ko ci xol nit ki lay nekk làng yooyu ay ay jaarukaay la yoo xam ne rek da cay jaare ñëw waaye leer guy ne ci dënnu nit ki lay nekk moo tax ñoom ñooñu ñëpp ginnaaw bi yontu bi sallallahu alayhi wa jàlle gis nga ni ñu mel ci xam-xam ñoom itam te ñun nit ñuy jàngi nii ak niñ ci daan sonne daaw ñu àgg foofu noonu kon loolu leer la gu yàlla xëpp ci xolu nit ki mu jàll ne saxiyun bilaa man nin ko tabe woon la waaye tabe gi itam bila man nin loolu it du lu jafe dangay gis nit di jël alalam di saax di joxe waaye léeg-léeg mu xanqan dégg nit ne ko yow kat bërki dem rek dimbalee naa la fii nangam ak nangam wala budul ko nag mën yow ci nangam ak nangam ko waxut wax nit xam nga loolu kon da yàq jëf waaye moom lu muy def fàtte na ko yàlla rek moo tax muy def su ma laa yóbbee woon maa anfaqo man nan wala azan moo def lu baax kon da ci dégg ne léeg-léeg nga ko def ba noppi yàqaat ko te doo ko yëg su ma laa yóbbee woon maa anfaqo man nan wala azan moo tax jëf wattu ko ba mu àgg jafe lool man nga def lu baax yàq ko ci wax ba yàlla dimbale ba yàqu ko ci wax nga yàq ko ci yow ci sa bopp nga naaw ko boo ko gisee rek mu yàqu wala nga njëstal ca mu yàqu yooyu yëpp ay aafaat la yoo xam ne day dugg ci jëf waaye moo tax jëf bi yàlla wax ne ku euh, lu baax ba nga ko tuddee xasana daf ne ku ko indi man jaa xasana xasanati ku jëf lu baax fexe ko téye di ko sàmm di ko sàmm ba ñëw ak moom fa la asru am saaliha waaw loolu loolu moo tax man jaa bil xasana si loolu loolu moo ko ci indi ku jëf-jëf di ko toppatoo di ko sàmm ba dara yàqu ci ba nga indi ko kon loolu moo tax li koy yàq ci diggante bi bari lool moo tax bi mu tuddee tabe googu mu toog mu teg ci loolu nga xam ne ci yàq jëf la sax yun bi laa mën ne waaye lim daan joxe Euh, dafay dem ba jiggi da am na ci ñoo xam ne sax loolu bokk na ci leen tax tuub tabug yonent bi sallallahu alayhi ndax xam nañ ne lii nitu simple mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko tabee daal ak yonent moo mën a mel noonu gis nga ki ñuy wax safwaan ci yéefar yi la bokkoon na benn xeex boo xam ne bi mu jàllee bi mu ñëwee daf ko jox téeméeri giléem téeméeri xar mu ngi meles ci ku mel luy xaw bëgg ñu daal ku mu joxaat ko yeneen téeméer mm-hmm. mu mel ni luy kiyeete mu yokkaat joxaat ko yeneen téeméer muy ñetti téeméeri ñetti téeméeri gàtt ci benn jotaay mm-hmm. nga xam ne loolu def na def na ci moom bari ci xolam nee na man yonent bi ci a bañ laa bokk waaye mu jël lu ci alal jox ma ko loolu gis nga ak tab gu rëy rëy moo tax bi mu tuddee loolu ba noppi sax yun bi laa mel ni mu ne kalaaman yu lay yun suy wax wax ji day nooy maanaam du du du du mel ni daal ku moom nit ñi suñ bay jaxati nee na mooy lu waxib wax seddal ko rek a ci gën tàngal ko rek ci bon bul mel ni gargu bangam <laughs> <laughs> mm-hmm. ah, loolu noom noom kalaaman yu layinu mm. mm. bul mel ni gaynde melal nim xar mu jur mu lewet mu ñëpp sopp banaa barbar ngiruk lewetam waaw loolu mooy mooy mooy ni moom kalaaman yu layinu nga xam ne suñu boroom daf ko daf ko mel ni lu jàngal wax ju nooy niñ koy defee mu ne ko faqul hallaka faqul hallaka ila an tazakka la waxoon Moussa mu ngi koy yebal ci Firawna ne ko ndax bëgg ngaa baax waaw boo demee faqulaa lahu qawlan layyinan da nga wax ak ci wax ju nooy ju nooy mooy faqul hallaka ila an ndax bëgg ngaa baax loolu moo tax may wax ne ñii faral di def ay daxaw ak di woo nit ñi ci lu baax <clears throat> ak di jubbanti loolu war nañ koy jàng ci aaya woowu ndax am na ku ñëwoon ci benn buur di wax ak moom di ko waar waaye ni mu koy waxee wax ji tàng lool bu mujj buur bi ne ko ah yow de ni ngay waxee man xam naa lu ma bon bon de àgguma ci mel ni Firawna yow it loo baax baax de xam naa mën mënoo gën Moussa kon nag wax ji mën naa mën naa nooy te bañ a àgg ci foofu nga ko àggale nga gis ne kon loolu melokaan la yoo xam ne ci melokaan yi yiñ daan taggee yonte bi sallallahu alayhi mu mel ni noonu mu mel ci nooy nga xam ne am na ko nettali ne fi am na nee na nee bi jaam bi nga xam ne moo gën a moo gën a moo gën a doyadi ci ci ci Medina mën naa jàpp ci loxoom fu mu ko neex yóbbu ko fa boo ko noon kaay gane si ma suma mu dem léegi gane moom la ko yàlla binde woon waaye nag loxo liinu bi tasdiidi wala bisru bi sadwi li nooy nooy nag maanaam nii la nii la dëgëre nooy gu ànd ak dëgër la wal bishru bi sadwi moo tax sëñ bi di ko tàgg ci bi muy wax ci mawaay bu naafi mu ne in raama ilman aw raama wun man aw raama zulman baaxi liqaay wa zaaka yuhda wa zaaka yuhda loho wa yurda zaabi shaqaay <laughs> moo tax kii ñëw di wut xam-xam wala ki ñëw di wut am-am wala ki ñëw ngir jubadi bëgg koo agressé ñett lañ lii mooy li ñuy wax ci bayaan la foog nasr fa zaaka yuhda mooy kii wut xam-xam wa zaaka yuhda lahoo kii wut si am-am danañ ko jox fa zaaka yuhda wa zaaka yuhda lahoo wa yurda ki ko bëgg a agressé wa yurda za bi saqaaya ki ñëw ngir agressé mu ñëwee ñu fekk fa jaasi ci wet gi nga tax am benn ci yéefar yi dama xamul ubay ibnu xalf la xawm dafa ne woon yonent bi yow maa lay rey bi ne ko fen nga maa lay rey mm-hmm. ñu bàyyi noonu keroog biñ demee ba dama xamul xare waxul la xawma xare badar mm-hmm. biñ indee prisonnier bañ bañ bañ bañ kii leen nga xam ne moom mi ko xam ne ko maa lay rey keroog yonent moo ko rey dafa nañ ma ko indil mu indi mu jël li benn kii xaw ma nañ koy woyee ci xar batu lañ koy wax kii la moom day ànd ak ràbb moom la jël kii ko ba diir ko ba jàkkaarloo moom rek dóor ko ci dënd bi jaaxaan mu ne jam naa ko jam jamiinu haasimiyu <laughs> nga xam ne kon loolu ne moom maay maay ad daxukul xattaal nabiyu daxukul xattaal maay raye ba nga defee ni kii jàmm rek la waaye raye nag ma nga defee ne <laughs> nga xam ne yooyu ñaar yëpp lu boole boo ñëwee jàmm fekk fi jàmm boo ñëwee li ci des fekk fa la ca des moo tax sëñ bi ci biir wax ji nee na yasaaru nabi fiiha xafaaya lu siantida yaminu nabi fiha ataaya li sijtida ndeyjoor bi ay maye nga ci yoo xam ne kuy sàkku si ay may nga koy fekk waaye càmmoñ bi fiha xafaaya li sijtida am na luñ ci nëbb loo xam ne ngir ñi ñëw ngir jubati nga xam ne ñaar yëpp la la boolem moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi sat wi jamono bu ne xar kanam bi mi ngi belli yaddaxaku bi tabassumi wal wajhu maahil xumami waaye nag bu song jotee rek nga xam ne jàmbaar song na moom yàlla bindewoon lépp loo xam ne itam lu lu lu ñuy lu ñuy diisoo ko xalaat la su su fekkee lu jëm ci wàllu nubuwa mën naa arrière retiré wu gis nga keroog xare Badar bi ñu campé ci bala ñoo agsi ci teen yi ki ñu wax xabaab ibnul art ñëw ne ko fii ñu campé ndax yow da nga fee campé ngir euh, stratégie de guerre wala wax yu gi moo la wax nga campé fi daf ne ko déedéet du dara kii la rek ay xalaat la rek mu ne kon nag man li ma gis mooy nañ déplacé wu fii dem ba ba sës ci teen wala ñu kii ko tuuti ngir buñ bëggee naan di naan dox diggante yëfar yi ak teen yi itam mu ne ko waaw loolu kon baax na moo tax kooku ñu di ko woyu zora yi moom lu lu aju ci lu ñuy xalaat ak natt rek bu fekkee wax yu gi àdduwu ci day jàpp ne yaa ngi ñoom yenn ci yem noo ko xalaatee rek boo ko gënee rafetu xalaat mu nangu ko fekk la ci loola waaye nag bu fekkee lu jëm ci lu ko yàlla ilham di ko xamal la foofu moom bi tasdiid du du du benn lu toll ak sibra keroog euh, sulu Xudayba ñu accord de Xudayba keroog dafa am ay ay ay ay accords yu ñu signé yoo xam ne dafa ci ci ci ci bëti saxaaba yi daal dafa juunu li ñuy wax juunu daal ci ñoom <laughs> lu lu ay faqaraat yu bari la bokk na ci ku jóge Makka bu demee foofa euh, nañ ko delloo te ku jóge Midine bu bu bu kiyee ak yeneen yu bëree bëri Omar mer ca mer moo xam ne ndax loolu daf ko jaaxal booba mu ñëw ci Ababacar ne ko waaw man du ñun ñoo ci dëgg mu ne ko waaw ñeene ci ay caaxaan mu ne ko lu tax ñuy jël suufeli ñu ñu jël kaweli Omar Ababacar ne ah man di gëm naa ne bi yonente la yonente bi yàlla la mu ne ko ah man mi koy gëm naa ko waaye nag nañ seetaat biir yi daal bàgg ba mu yàgg ndeysaan xam naa bi mu demee ba dem ci yonente bi directement nag na ko ñun ñoo ci dëgg mu ne ko waaw mu ne ko yéefar yi ci caaxaan ne ko waaw lu tax ñuy jël lu suufee la ñoom ñuy jël lu kawe la yonent na ne na teg mu yàgg ma ne ko moo Omar lu yàlla ko bi yonentam def ndax am nga sañ-sañu firi <laughs> bi mu ko waxee keroog bis bi dafa sedd bis bu sedd la woon booba nee na booba ñu ngi taal ay taal yi di jaar waaye nee na keroog dama ñaq ba sama yaram bi tooy <laughs> bis boobu bu ko fàttalikoo nee na dama koy sàkkal sarax ndax ndax ndax ndax ñàngaay bi ko waxee keroog nga gis kon foofu lu jëm ci wax yu gi ak ak yu mel noonu du ci masla du ci du ci du ci kii te moo ne Omar lu jiitu lool de bari na yu bëree bëri yoo xam ne bi ñu def ko li ñuy wax remettre en cause mbir yi wax yu gi wàcc ànd ci ak moom gis nga prisonnier yooyu ci Badar waaye toujours rek dafa am limite yoo xam ne loolu la liinu bi tasdiidi bi bisru bi sadwi nga xam ne toujours limite yi fa lañ fa lañ fa lañ koy yem waaw ah, ci doon tënk daal loolu ay jikko la ci ay jikkoom yoo xam ne ah, yu ci ràññiku la sant dañuy sant bu baax rek mm. ah, moom waxtaan mi kawe na kawe na su lool mm. ku ko déglu nga gën a xam jikko yonent bi sallallahu alayhi wa mm. ba ba nga mën cee roy ndax roy roy lu baax rek am solo te yonent bi sallallahu alayhi wa lu baax la hmm. waaw léppam lu baax la kon hmm. dañuy dañuy sant bu baax rek sëñ bi di ko sant bu hmm. baax baax ci jàppandal geeg woyof geeg lépp rek di ko ñaan sa borom dolli ko kattan naa di fàtte rek mbokk yi bisub salaatu ala nabi bi nga xamante ni moom lañ moom lañ dëgmal bis boobu nag dinañ ci fàttaliku way daw li nga xamante ni ñoo àndoon liggéey bi te su borom jël leen ñaan la saa borom doolu leen tawfeex fan nekk barke salaatu ala nabi yi nga xamante ni ñoo àndoon di ci liggéey hmm. bis boobu des na leen ci des na leen ci ñaanal bu baax a baax a baax suñu boom doolu na yërmande hmm. fàttali ñëpp xam naa di wàccee kàddu bi rek jox sëñ bi mu soññu ñu ci salaatu ala nabi ak wàccaayu bis boobu incha allah rabbi ok jërëjëf xam ne am na di delloo nuyoo yi rek cant yi rek ak rafetlu liggéey bi nga xam ne salaatu ala nabi moom sëriñ bi lu na ko lool dina ci masalikul jinaan <coughs> bi muy lim askar yi ba agsi ci <coughs> nam ci waxee rek loolu ab soññ la boo xam ne ak lim ci liggéey nag ci ay ay mbind nga xam ne téere yi bare bare bare man nga ne lépp salaatu ala nabi rek la mm-hmm. mu ne ko ci muxaddamatul kufra muxaddamatul xidma mm-hmm. nga fatihul bichri yooyu yëpp liggéey yoo xam ne salaatu ala bi daanaka rek mooy la ci kon loolu ab soññu la ci maanaam ak am solo lu mu gën a bari itam moom du doy ndax loo xam ne foo jullee ci moom moo mu wëlbatiku julliwaat ci yow ndax loolu yàlla may na ko ko yàlla may na ko capacité foo ku julli ci moom mu mën a jug tontu la ba dinay tukki loolu nag kon liggéey bu am solo la boo xam ne ngeen yàlla ngeen ci def rek yàlla nangu ko te fulal leen ko te àgg ca bis ba ak jàmm yàlla yàlla nangu ko ba ko ci xasanaat yi gën a gën a nangu بركة الشيخ الخليل إن نبينا إن النبي الرسول